commission wu loi assemblée nationale dañoo daal di rejeté li nga xamante ne ni moom mooy projet de loi bu nguur gi indi woon foofee ci assemblée nationale ngir rek ñu daal di tas institution yii di au conseil des collectivité territoriales ak conseil économique social et environnemental yooyu la institution ñu yàgg leen jàppee ni yi nga xamante ni li ñuy jël ci xaalis dafa daal di bari lool. jàpp ni amalul njëriñ benn yoon lii di askan wi li li ni mel nag député benn Bokk Yaakaar yi nga xamante ni daanaka ñoo ëpp foofee ci assemblée nationale ñoom nag dañoo daal di boobu boobule projet de loi li ni mel nag daal di indi bras de fer bu méttee métti seen diggante njiiti réew mi ba Bassirou Diomaye Faye moom mi nga xamante ni dafa daal di woon bind benn bataaxal jagleel ko conseil constitutionnel mel ni rek ku leen di laaj seen xalaat ci li nga xamante ni moom la namm mooy tas assemblée nationale fii ak 12 septembre bii di ñëw tas yooyu la ñaari institution bokk ci li nga xamante ne ni ñoom dañoo jàpp ni luy gën a yokk koom-koomu réew mi la wante rek dina tax ba li nga xamante ne ni moom mooy rationalisation des dépenses bi nga xamante ne ni bokk na ci seen i gis-gis ñu mën koo jëfee wante rek mu mel ni yooyu la mesure du ñàkk rek mu daal di jur ay conséquences yu bari lu ci mel ni tasub assemblée nationale boobu la organiser ay élections législatives anticipées wante li ni mel faaw rek ñu xaarandi ba 135 jours ngir rek ñu mën a amal li nga xamante ne nii moom mooy parrainage yi.